njiitu réew Sénégal président Macky Sall daal dina joxe lu toll ci juróomi hectare foofee ca cees mu jagleel ko ñi yëngu ci mbirum set setal gi loolu nag dina toll ci ñaari téeméeri logement buñ sukkandikoo ci jéeruñ gi dénk mbirum urbanisme logement ak hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow daal dina xamle ni que lu toll ci téeméer ak juróom benn fukki agent dinañ ci am que dañoo xool ñi nga xam ne ñoo gën a yàgg ci secteur bi ñu neexal leen ndax liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci réew mi doon nañ fukki agent yu nekk SONAGED ñenn ñi journal yi lañ doon def ñeneen ñi bokkoon ci programme xëy ndaw ñi mu am si sax ñoo xam ne ci personnel administratif bi lañu ñu bokk. jëwriñ bi daa dina annoncé itam yeneen ñetti hectares ci zone d'aménagement concerté yi nga xamante ne dañ leen a sàmm ci biir réew mi. donc président de la république li nga xam ne moom la ubbi mooy une nouvelle page dans la gestion du capital humain du nettoiement dans la mesure où loolu ministre bi wax na ko tey joxe na ndigal nii ndogal nii fépp foo xam ne dañ fay def zone d' aménagement concerté ci Sénégal ñu jagle fa l' équivalent de trois hectares à la communauté du nettoiement loolu bu ñu ko toppee dinañ dem ba nga xam ni au chapitre des avantages sociaux acquis du personnel figurera l' accès au logement mu doon lu solo bile offre dafa ñëw rek ngir rek gën a dooleel liggéeykat yi. cette xew-xew bi nag dafa doon lu am solo ci suñu taarixu réew ndax doon na loo xam ne dina gën a jox gëdd ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci secteur bi. ba noppi itam doon na benn sàkku téef boo xam ne syndicat yi ay at a ngi nii ñu ngi ko doon def. mais ci seen lëkkaloog banque de l'habitat ministre de l'urbanisme daa dina annoncé itam dinañ ubbi liggéeykat yi ay compte bancaire te nag ci compte bu nekk dinañ si dugal lu toll si juróomi junni